vidéo Benoît daal di koy maa ngi lay nuyu di nuyu ñi si plateau bi yëpp faa boobu man dama xamul lu tax bu jógee rek man pros ak ñeneen ñi du ñu jóg xam nga kii ko benn affaire mu toogaat mais man la nam ma moo tax miy def yooyu yëpp maa ngi ñëw yow xaar ma rek maa ngi ñëw père Mbaye Ngoone moo nami moo frère xam nga ne yow fen <laughs> yow xam nga ne demoo fen xaar ma ne fuis pas de xaar ma j'arrive Safia <laughs> maa di nuyu di nuyu ñi ci plateau bi yëpp et puis euh, di wax happy birthday euh, à li Lisa Diop euh, di ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm Sénégal et puis di ñaan yàlla feebar bi fa nekk yàlla na fa jóge su ma ñëwee ci thème bi rapidement li ma bëgg a wax mooy dafa am benn partie bu ma suivre léegi le gars en chemise bleue je m'excuse dama fàtte turam Père Diop am lu mu ko yuuxul mu dellu gannaaw mais je veux dire à jabar ak yaay c'est différent man su ma nekkee extérieur sama dépense day mot si sama jabar parce que loolu la ma sama yoon bi ma nekk sama yoonu diine loolu la ma sant li des nag maag sama yaay maag sama yaay la mais sama jabar dépense si loxoom laa koy teg muy organiser ma koy wax nag day jox sama yaay boo toggee ak loo mënti def jubóol ak mère mais sama yaay man li ma koy jox dina ko yor ba mu mot sëkk nga xam ne du soxla dem xaalis si sama jabar mais sama dépense ki nga xam ne laa takk kooku laa koy jox muy togg di togg lu ko neex di toggal sama njaboot lu ko neex njaboot bi nag ñépp la sama yaay si la bokk ñu fa nekk si lañ bokk mais dépense bi si loxoom lay jaar muy benn na leer parce que gaa gars dafa dellu gannaaw ne ko ñu teg ko si loxo mère bi man du ma doxalee noonu parce que ki ma takk laay jox dépense nga xam ne moom mooy def lu ko si neex les jeunes d'aujourd'hui je vous conseille une chose même bu fekkee on est dans un pays sous-développé arrêtons toujours de dire que dañu war a dëkk ak suñu parents yi essayons de progresser ñun suñu waajur yi am na erreur yu ñu def ñun buñ ko def y a des terrains partout au Sénégal fu mu fen soreetul gaa ñi Sénégal uti leen seeni ay terrain loo leen am di si sànni bu dee dërëm ngeen def si bu dee cent mille ngeen def si ba mëtale su boobaa vous aurez l'occasion dama ne femmes là-bas ba pare invité fa seen papa ak seen yaay papa yaay seen aleel du alal papa ak yaay seen alal yéen du seen alal dañeen ko bokk mais jéem leen utal seen bopp bañ a wéeru dama war a dëkk sama kër papa dama war a dëkk sama kër yaay ak jabar Sénégal loolu bokk na si li nga xam ne tamit saanu tardel parce que jeunes yi noonu la ñu màggee loolu la ñu bëgg dugal seen bopp man je dis non loolu dafa war a jeex il faut ñu am beneen vision jeunes yi am beneen vision nekk ak sa kër pap ak sa kër yaay loolu jëmewul réew kanam fenn soreetul nag man conseil boobu looloo taxoon ma gën a dugg tey bu yàlla defee nga am lu tuuti ngeen di jàppalante yaag sa jabar ut leen terrain loo leen am def si di koy tabax ndànk-ndànk boo leen sëyee yéenay invité seen pap yéenay invité seen yaay pour ñu leen fay fekk je crois que un homme ne doit pas dépendre de son père pour vivre kooku dafa war a leer parce que Sénégal yu bari dañ koy jël maslaa mais maslaa boobu moo fara deñ le respect entre jabar ak sa yaayu jëkkër tout dépend si ki nga xam ne mooy góor gi un homme tu dois être responsable tu dois être responsable xam sa jabar lan la sañ def ak lan la sañul def ak xam sa yaay bu waxee ndax li nga xam ne def nañ ko am na wala amul mais doom mënul taxaw si kanamu jabaram ne yaayam amul dëgg non mais di nga dugg ak sa yaay si néeg xamal ko ne ko kat maman je crois que ni nga doxalee tey ak sama jabar si jekk ak teraanga parce que ñoom ñaar bu ñu juboo foofu la paix bi di nekk mais daal li ma bëgg gën a enfoncé jeunes yi jëkk leen utili seen bopp ñun noo parent ñu si ëpp dañu def erreur doylu woon ñun nag nañu jóg utili sañu bopp pour mun indi sañu parents yi si sañu kër yi ñu moom moom maa ngi leen di nuyu waa jooju wax njàkk njattu nag wax ko moom man lif laay pare pour su ma ñëwee <laughs> mu wàcc si plateau bi dalal tuuti j'arrive bul daw Benoît gune yëpp ni nu amee émission fii ci kër gi ay gune yu tuuti ñoo xam ne ba ñuy sos seen show ñoom nekkuñu fi noonu laa bëgg a amee émission boo xam ne duma ko bokk ak kenn duma ci ànd ak kenn maay toog géral ko sama bopp mën naa ko te àddina xam na ne mën naa ko benn ñaareel ba yow sa bopp yow doo jox sa ndey dépense bi doo jox sa baay dépense bi yow yaa koy gérer sa bopp jox ko sa jabar mooy toggal boppam waaye njaboot gi yépp nekk sa yaay ci la ay bon waa soo dajee ak jabar ju bon bii nekk di wàcc sa ndey yaa ngi ci biti de da tukki doon immigré fekkee woo li ci biir mi ngi fii sa ndey ci njaboot gi la lu ko neex togg waxtu bu ko neexee gàddu aw tànkam dem yoonam sa ndey dina ko rus a wax wala dina ko ragal a wax du yendal du fanaanal ci biir kër gi nooy def koon jabar jooju di nga ameel sa ndey àq de yomal xëyaam dinañ la duma de ndax loolu yow yaa ko teg ndax sàmba du mën kanamam mën ginnaawam mhm. nga dajeeg jabar ju bon jël lépp di ko teg ci loxoom mu nekk ak sa ndey sa ndey rus naa wax nu ne moo fi jëlee sa jabar sa ndey ñemewuta wax ne moo fi jële sa jabar sa baay mi ngi toog jàpp njàmburam sa jabar di dicté ay loam te yow nee nga balaa ñu te ñëw sa kër donte konte muy sa baay su fekkee ngay nelaw bu la kenn yee nan la laaj ndax mu dugg wala du dugg waxul loolu Sofia moo ko wax waxul loolu moo ko wax su ko waxul yàlla bu ma gisee borom tubaab yow nawloo ma la sax <laughs> ndax mu gaaw ñibbisi sax gis nga noonu nga mel noonu ak foofu nga nekk bay wax gerees gi ci ginaar ba tax muy jenj gu ko ëpp ngi ci xàbbon mu ne mu gëg moom ay sëti sëñ Modou Moustapha Fall ñoo nekk Washington ñoom Manel Fall ñi nga fa ñoom Saasi Fall ñi nga fa mais jamais déraciné dëkk ci kërug daara dàq mm. laaj jàng fuuf mm. ëpp le niveau mais jamais déraciné ku ca nekk États-Unis mm. dégg ngeen jabari bàyyi ma njoon jooju nee na Ablaye Diouf Fall bàyyi bàyyi ma njoon moog yaayam ñoo bokk jenn ak benn baay taxaw attana seere lii mel ni ku dëkkul ci village car Géej village village ci village sa jàppaar la pourtant waaw waaw ba di def loolu mbokk amatul ah nga nen di ci mbokk waaw la da nga ne sa jarbaat la pourtant waaw sa jarbaat la amatul moo dem ba di ma lii ma toog ak adduna mbokk di ma seede lii pourtant jéem na la baax ba sonn nag la sama nijaay nga waaw mais après la ca xolam li ci làmmiñ bokkul ak li ci xol li ci xolam la génnee wax ko ko. li ñu doon tuumaan ñu yàlla àtteeg. waaw waaw waaw donc nangu naa ma koy ma koy nangu ma ko def. <laughs> d'accord papa donc émission bi instant bi jeex na xam naa dañuy def. man bëgguma jeexal doon yi dem mën na ah, dem ba suba. waaw ci confinement mën na dem ba suba. waaw xaaral waaw man je peux plus de deux heures de temps. encore waaw dëgg la dëgg ce n'est pas pour vous mais man pour diaspora bi moom laa wax ñoom laay wéttaliku waaw ñoom doyulu yéen kay su ngeen amee courage na leen dem ba suba d'accord dañ ciy profité souhaiter un joyeux anniversaire à Mona Mona Lisa Diop euh, bu benn Benoît Mona on te souhaite tout le bonheur du monde la totale yàlla may la jàmm ku baax nga donc ñu ngi lay ñaanal bu baax. mun naa bu baax mun naa oui di nuyu say doom ñoom ñëpp foofu ca Delaware aux États-Unis sama sama sama noonu la mais bon. vu sa anniversaire la dama lay neexal tey donc happy birthday à toi ñu ngi lay ñaanal bu baax père nag dinaa la ko yónnee incha allah mu ñëw vacances États-Unis. man pourquoi pas euh, man su soobee yàlla su fekkante ne du corona bi damay dem. am naa paas am naa ku ma yóbbu am naa ay mbokk. waaw su nekkul woon corona bi barke borom Tuubaa. waaw xanaa di nga a yow am nga su ma fa demee dem fa mais am naa ay mbokk de. waaw mais c'est normal tax mais su nekkul feebar bi. yoo xam nga ne instant def tour parce que am na fu bëri fa waroon dem. yow yow am ci sa barke borom Touba Mbacke. opp ji rek a tax. waaw xaar leen ma rek. nga sori soo seree damay wéet. ah mais du toog nga di ma këll këllee nag. ay gune yu tudd dugg di la a ñàkk <laughs> non non non euh, damay am beneen émission. on est on est presque waaw mënut a ñàkk. waaw loolu tamit mënut a ñàkk il faut nga am sa émission. boo xam ne xam nga. waaw dépassé ah, kii ah, kii ba ki dugg léegi. sën yaat ma aussi mi ngi ñuy seetaan mi ngi lay nuyu. kan sën see Yatma. sën see Yatma. sën see sën see Yatma loo. xam nga sën yaat Yatma ki daan def karaté. Yatma loo ngay wax. waaw moom laa la wax sën see sën see titre la waaw kooku mhm. dafay koo xam ne. Mhm. su ma mësaan a pare émission RTS. daf may xëcc ne ma doo dem tribune du sport kooku ma la gën a xam ah, foofu tribune du la ma daan wax mooy yaayu Khadija mooy yaayu Khadija ah waaw ni ma doon expliqué mooy ki dugg léegi te doon la wax naan ah, sëñ bi da ko woo ne ko su dee ab pont la soo ko kii sa kilifa gee su la nee daaj ko fee te konte xam nga ne fee sax waroo ko faa daaj yow juumuloo su njuumte dee am yow juumuloo yow daajal foofa rek mhm. kooka wallahi barke borom Tuubaa seen Cheikh Daaru Rahman moo ko wax ndax moo ko yar te jege woon na ko lool muy tafaakan ji passeport am fees na ñeenti yoon day fekk ay ñoom Pape Makou day dem ba Europe góor gi si Dieng xam na ko ñoom ñëpp xam nañ ko kooku mooy tafaakan ji seen Cheikh Daaru Rahman moo ko wax lool ci diggante ak magam Abdou Kandji di ko war ne nit da ngay am kilifa mhm. kilifteen marche escalier la am na solo moment où vous allez atteindre loolu mooy kilifteen kooku sëñ boobu ñooñu doonuy liyaar suñ lay jàngal àddina doon lay formé di la liyaar ak di la junj foofu kërug daara la kërug baay fa ñoo ñooy jolo ñoo jëkk ay ndaraame kànji ay seew xaay ñoo dëkk ay lonkaan ak cooyeen ñoo dëkk ay ndaraame gàcce kii soo demee ba biir Saalum ñoom ñoo fa dëkk ñooñu ñooy vrai jolof jolof yi mais kii ne jolof la dëkk ma laaj ko fan mu ne ma paas ma ne ko ndax xam nga baxal mu ne xamul baxal kii dëkkul jolof waaw d'accord waaw d'accord ndax paas mooy baxal amul problème yang-yang gillee mboy naan mbula bakkero ngay dem aafe <laughs> ma ñi sant ñang d'accord Sophie pare nañ émission bi jeex na tey ñu tënk thème bi nga xam ne moom la ñu commencé depuis